lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci réew bi rek mbokk yi nañ leen ko toppal waaye bis bii nii mbokk yi ku ne xam na ne bisu bu ñu ko waxee di bisu màggal ki nga xam ne moom moo di màggalu daaru muxti nga xam ne maam daaru salaam nga xam ne maam Cerno Birahim tabal daaru ah maam seex Anta mbakke maam Cheikh Anta Mbacké nga xam ne ki nga xam ne muy jëmm ji nga xam ne moom la ñu toogal di bàyyi baaxee Mbacké waaye dañ fay fekk kenn koo xam te di nag mbokk yi kenn dootu ko présenté buñ ko waxee muy Sa Touba bu Serigne Saliou Saa maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Makan ngi lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru yàlla sama borom bi yàggal ko fi te mu ànd ak wér ak mboolem kilifa diine bu ne ci réew mi noonu lañ koy ñaanalee suñu xarit suñu soppee suñu sëriñ muy baay Baaxe Mbàkke mii nga xamante ni moom wax dëgg yàlla liggéeyal yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa rek a ko ñor ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax teewaay bi nga xam ne moom lañ teew fii itam kóllëre gu ñu yàlla boole moo gën a tax ñu ñëw fii nii tey ci màggalug Daaru Salaam gi nga xamante ni Cheikh boroom borom Daaru Salaam ak gaawaan moo ko woote. tey Daaru Salaam Daaru Salaam teewaay waaw man ku ne xam na fii laa dëkk parce que Daaru Salaam ak Mbusoobe sorewuñ euh, benn benn benn gox la ba pare bàyyi baaxam yi di sama xarit di sama wëllëre bëggal ma boppam te yàlla rek tax kon bu wootee lu mel nii tey ñuy màggal màggaluk maamam gi mu baas baas lu mel nii ah wax dëgg yàlla jaadu na ma teewal ko loolu moo gën a tax ma sol sama dàll ñëw fi tey ngir jëmmi Serigne Touba. sa digg ak moom gis naa la mu dugal la sax muy bari bëri ma ñëw mu tànn ma dugal ma ci néegu boppam bi wéet ak man dafa am fu ma teg te dafa ma jàpp te Serigne Touba rek tax waaye baaxee Serigne Touba rek tax mu bëgg ma moom sama tur sax bu ci bu ciy jaar xolam bi day sedd moom dafa ma koy wax saa su ne day dafa may woo téléphone di waxtaan ak man plus de deux heures de temps. ci koo xamante ni man man mu xeebu mi rek moom muy sëtu Serigne Touba di sëtu maam Cheikh Anta Mbacké mu ma fayam daal xam naa fi ma teg moo tax saa yu ma koy saa yu ma yàlla dimbalee rek ma koy fekkee rek damay ñëw di ko teewal ndax kóllëre gu mujj la moom barke Serigne Saliou di ko ñaanal yàlla rek mu yàgg koo def barke Serigne Saliou mbooloo bu toll nii di ko xaar ci baas gi. Baye Baaxe dafa doon jëmm joo xamante ni. saa doomu aadama bu mu mën doon bu la gisee day wàcc boppam yëkkati la yow wallahi lazim du caaxaan baay baaxee day wàcce boppam di yëkkati doomu adama moom bëggut doon sëriñ moom taalibi rek la bëgg doon baay baaxee dund taalibi rek lay dund wax dëgg yàlla mu doon nit ku baax ku am taalibe doon koo xamante ni ku am diine ku am lislaam di ko ñaanal yàlla ngërëmal sëriñ Touba yàlla na ko yàlla defal baay baaxee nit ku baax la Baye Baaxe nit ku baax la barki Seexul Xadim wallaahi nga gis mbooloo mi bari lool taalibe yi tamit war ko tey boo ko doon dénk yan kàddu nga koy dénk waaw man xam nga taalibe laa ci kanamam man daanaka awma lu ma koy dénk moom moom may dénk ndax ñun ay taalibe rek lañ place taalibe rek lañ mën a yem dañuy def rek di jàng ci jëmmam ji rek di soññiwaat suñu bopp saa ñu xoolee ci jëmmam ji rek dafay am dañuy am luñ jàngat lu bëree bëri loo xam ne dañuy defaraat suñu toogaay dañuy dolliwaat suñu yar dañuy dolliwaat suñu teggin ngir li ñuy gis ci moom ndax sëñ daawur mii sëñ daawur mii xam na bu baax kan mooy baay baax ndax wëllëram la te léppam la barke Cheikhul Khadim baay baaxee bëggut a yëkkati boppam mukk di suufeel nit koo mën a doon ci àdduna nag da ngay ñëw mu yëkkati la ba ca kaw wàcce boppam moom moom bëggut a doon sëriñ taalibe kese la bëgg doon li nga xam ne moom la bëgg muy ngërëmal sëriñ tubaa ngërëmal seex Anta yàlla na ko yàlla defal digganteem ak sëñ daaw daawur mii xam naa ci lu bari ndax bisu seen daawur bii bi mu koy def mbuur mbuur ba sëñ sëñ baaxee daa bàyyi itam yëpp ñëw ci bis ba maag moom a fa dajee tax xam naa fi mu ko teg te sëñ daawur mii itam noonu la mel ci baay baaxee bisu baay baaxee bakkanam bi la ciy teg lépp moo ko yor dañ koy ñaanal yàlla moom it ndax dañoo bokk Serigne Salim rakkam di sama xarit muy Baye Sall yal na ko yàlla sàmm taxaw ko barki Serigne Salim Mbacké. li nga maam Cheikh Anta ak lan la. xam nga Daaru Salaam nag Serigne Touba moo ko jël séddee ko maam Cheikh Anta Mbacké te njabootu Serigne Touba gi ñu ci bëri fii lañ ganee àdduna ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal. sëñ Modou Moustapha fii la gane àdduna te dafa am ay mbóot yu am Daaru Salaam ndax Serigne Touba Khadim Rasoul yàlla dafa dogal njaboot yi mu daan am yépp daawut toog waaye suufu Daaru Salaam moo ko njëkk a téyel mu doon ay mbóot yoo xamante ni mi ngi fii muy sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ñoom ñëpp fii lañ gane àdduna muy bërëb bu sell ba pare kuñ fi denc nga texe Daaru Salaam bi ndax Serigne Touba Khadim moo ko ñaan fàggu ko ba xam ne itam ne fii képp kuñ fi denc ñi lay mbugal ñiy mbugal ci biir bàmmeel moom doo leen gis muy bërëb bu sell ku ne xam ne diggante maam Cheikh Anta Mbacke ak Serigne Touba ndax le 11 novembre 1902 bi Serigne Touba ñibbisee moom la njëkk a moo am dërëm ami ngërëm da koo sàkku ci sëriñ bi liggéey ko ci sëriñ bi ba sëriñ bi bàddeel ko waaw baas bi yàlla na say aajo faju yàlla bu kenn manqué déwén yàlla na ko ñëpp fekkewaat ak mboolem ku ñuy seetaan ak mboolem kuy dégg suñu kàddu ay jaamu yàlla lañ juy ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla sans borom bi yàlla na yàlla def tawféex ba mboolem ku ñëw ci bis bi rek yàlla may la kattan goo fi a ñëwaatee ëllëg indaale ay xéwal ci barke